waaw man Massamba Diop ah euh, aujourd'hui damoo ñëwoon doon def tournée ci kër diine yi nekk euh, Thiès Nord pour euh, barkeelu ci tabaski bi ñu jëm et aussi joxe waale fa ay gel antiseptique ak ay masque pour julli julli julli tabaski bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy waajal ajjuma bii di ñëw loolu rek moo doon objectif tournée bi amul dara dañoo ñëwoon rek jóg gis euh, xool kilifa diine yi nekk zone nord bi seet si leen barkeelu te aussi participer suñu suñu kii si julli gi ci loolu aussi si lañ ñëwee defe naa dem nañ kër sëñ Fallou Fall sa euh, fa jógee dem nañ kër sëñ Modou Lo foofu jaale aussi euh, joxe jox participer waale si ci julli gi ngi nii Kawsara kër sëñ Moussa fi jógee aussi tamit dinañ dem. daabaay baay ñu ko jógee dinañ dem kër kër kër kër maam El Hadj comme ni nga ko waxee rek sànq joxe nañ ay masque joxe nañ ay gel aussi def nañ ay participation financière loolu moo doon euh, mbébétu tourne bi waaw ci loolu daal lañ lañ lañ nekkoon di di di si dox si sooba période bi ñu ne moo tax boo xoolee ñun euh, li ñu bi ñu jógee li ñu li ñu yóbbaale yóbbaale nañ ay masque ak ay ak ay ak ay gel loolu day day day am rek lu mu firndeel maanaam mooy période pandémie bi ñu ne kii de sensibilisation la ba julli àjjuma gi amaana mën nañoo am ay mat kii ay ay produits mais amaana mën na bañ a doy ñun rek dañoo jóg rek li ñu suñ poos may ñu ñëw def ko te aussi li ñu def nii maanaam amul lenn politique amul nii yëfu àdduna maanaam loo xam ne lu ay nit toog la xalaat ko jàpp ni lii lu baax la. ci dëkk bi lañ dëkk ci gox bi lañ dëkk war nañ see mën a participer ñu jóg jàpp si boo xoolee soxna Jéegay mii nekk sama wet moom APR la ne man euh, république des valeurs laa ne ak ñeneen ak ñeneen am na ay jeunes réew mi tamit ñu jógoon ànd si si lii parce que acte boo xam ni acte bu rafet la ñëpp gis nañ lu rafet la ñu def ko ensemble loolu daal lañ lañ lañ kii woon moo doon sababu journée bi ak jóg bi ñu dem bi ñu demee aussi waxtaan nañu kilifa yi. jox jàllale nañ suñu message aussi si pandemi bi pour ñu jéema a kii taali gën a kii taalibe yi pour ñu gën a gën a respecter les mesures euh, barrières maanaam mooy sol masque yi surtout sol masque yi ba yi aussi ku ko am boo génnee ba dugg sa kër nga mën ko jëfandikoo laal ko ak euh, les savons là ñu mën ko def loolu daal moo doon moo doon sababu tournée bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñii ñu àndal nii ñu si jóg déplacé wu perte seen temps def ko aussi tamit di di wax lenn fépp fu ñu dem. dalal nañ ñu te ku ku jàpp ni kër kilifa diine yi xamuñu lu xew si dëkk bi yaa ngi yaa ngi nax sa bopp dama loolu dama koy préciser ku jàpp ni xamuñu lu xew si dëkk bi yaa ngi nax sa bopp bi ñu demee dalal nañ ñu ñoom tamit même si eh, pandémie bi nekk fi am na ay conseil yu ñu ci jox. yoo xam ne yow amaana peut-être yow ñi ñi nekk sax di communiquer ci état bari communiquer wuñ ci mais ñoom xam nañ xam nañ tamit ni ñuy communiquer seeni i seen i taalibe li ci des mooy jéem leen renforcer ay moyens rek pour pour message bu gën a jàll te ñun ci tànk yooyu lañ nekkoon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier ñëpp merci. bof affaire yooyu xam nga du question boo xam ni dañuy ñëw rek régler ko nii parce que Sénégal fépp foo dem inondé wu na maire bu ñu la mën na koo régler waxul am. état sax pour mu régler inondation beneen problème la parce que du affaire boo xam ne dangay jël nii rek di tikk au tak ça demande des études te étude ku ni étude du tey du suba sa prend du temps te aussi est-ce que nit ñi dinañ la permettre yow étude bi nga bëgg a def fii inondé nga def ko ñu fa dëkk parce que il faut reconnaître y a des gens yoo xam ne dañoo dëkk si yoonu ndox ku dëkk si yoonu ndox nag ndox du bàyyi yoonam mais am na fee yoo xam ne da nga koy rencontre loolu ay mesures yoo xam ne lu nit ñi mën a jël la ndox mi bañ fa toog mais inondation yi nekk si biir quartier yi loolu beneen affaire la franchement il faut dire ça loolu beneen beneen affaire ça demande des études nit ñu am xam-xam ci loolu ñëw def ay études ñëw proposer ko si état man li may lancer appel état bi mooy ñu continuer études yi ñu doon def et aussi bu ñu ñëwee ñu wutal nit ñi fenn fu ñu dem ñu ñu régler problème bi am na yenn fee yoo xam ne nag. muy maire yi nekk si gox yooyu dañ see war a jóg maanaam tey fu fenn inondé nga xam ne fii inondé na nga wut matériel jéem créer ay fossé divergent pour dégager ndox mi ndox mi am fu mu jaar dem bañ a bañ a bañ a bañ toog mais ñëw ne dama koy régler nii wax dëgg yàlla loolu du lu du lu yomb te seen budget sax matewu ko.